ak ki nga xamante ni mooy Ndiaye Tine Bawol Bawol bi nga xamante ni fan yi moom daanaka euh, gars yi dañ leen xaw a jox bopp Bawol Bawol moom ku ci am combat gars yi dañuy sot bu baax a baax a baax a baax tey nag ma woo leen fii bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom seen carrière bëgg waxtaan ak ñoom li nga xamante ni ci lañ jógee ndax ñoom ñaar ñëpp mbokk yi ku ci nekk ci ndam nga jógee mais nag am na polémique boo xamante ni am na ci diggante Thiatou Yakh ak ki nga xamante ni mooy Bulldozer moom la abit jox ndam Bulldozer génnaat ne euh, moom moo daan waaye lépp defe naa ne tey dinañ ko leeral fii yi nga xam te ni mooy ci biir wasaare ci jàmmaarloo ma bàyyi leen mu nuyoo caat nuyu naa la. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani ginnaaw bañ sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi di ñaanal suñu wayjur suñu borom bàyyi leen suñu kanam ñi nga xam ne ñoo euh, mbokk way lii ñu leen di suñu borom suuf oyof seen kaw. ñi tëdd ci lal hôpital yi yàlla fëgg seen bopp moom oyof. ñi nga xam ne caabi ñoom la féete ginnaaw suñu borom libéré leen. bañ dellu ci seen njaboot di ñaan jàmm ci Sénégal di ñaan jàmm ci guerre bi nga xamee ne moo xew Ukraine ak Suisse. Mm-hmm. ak ak Russie suñ borom delluwaat leen ci jàmm ak salaam ñu ngi nuyu axlu làmb di nuyu axlu Sénégal di ñaan jàmm sax ci Sénégal jërëjëf. gis ngeen yàlla jàmm sax ci Sénégal fi ma njëkkee sax mooy dama woon baalu nit ñi àq ndax. amal na leen àq ndax nit ñi euh, moomoo leen ku ci jël xaalisam jënd connexion wala jël xaalisam jënd crédit uniquement pour bëgg la seetaan ak ñi nga xamante ni ñoo ngi leen di tànkal ñenn ñi ñoo ngi leen di kii di baalu àq Sénégal yëpp di baalu àq ñi nekk bitim réew ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Njaati nuyu naa la. Ousseynou feenaa naa la bisimilah mina shaytaani bisimilah rahmaani rahiim ba ñu ci yonent bi di nuyu Thiatou Yarakh di nuyu sa caméraman yi ak sama xarit Abdou Baro ma fi àndal. Mm. di nuyu waa Bawol gépp di baalu ñëpp ak ci weeru koor wi ñu dugg. Mm. di ñaan luñ ci jut luñ ci ñaan rek yal na ko yàlla saa borom dafay ngënal tul ko ci jaam yàlla yëpp. di mm. ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp ñu ngi leen di ñaanal. waaw di nuyu sama waa koñ Colobane fu mu jógee ah, ak waa Bawol waa Refan waaw maa leen ziar bu wér a wér a waa réew Maawo waa réew Maawo boo nee Bawol rek jël na <laughs> cadre nga. noonu la demee dégg ngeen boo nee Bawol cadre nga ba tax na tey nag ñoom ñaa laa fi dalal ndax ñoom ñaa nekk na ay xale yoo xamante ni dañoo bokk ci làmb ñoom ñaa nekk na ay xale yoo xamante ni bu ñu jógee kenn du laajte ana mbër mi euh, Thiat yaa ngi ci ñaata combat. maa ngi ci 11 combats 10 victoires benn défaite. 11 benn défaite. waaw Johnson moo ma daan. boo Johnson. Johnson waaw. moo ma daanoon sama deuxième combat. dama koy wax nag nee na maa daan maa njëkk a daan caatu yaa. effectivement moom ba léegi ndax nag làmb ji xam na ni mu demee image bi mu bi sax boo ko mhm. ndax topp sama rythme boobu jour boobu maanaam adversaire bi ci biir làmb ji laa ko gis. mais est-ce que nekkul da nga koo xeeboon. non erreur ménagère la woon parce que am làmb ñu war la wax kenn nga war a bëreel ak kan mais dañu jàpp ne mu ndaw nga xam nga bàyyi la ba le jour suñu naan kii ngay bëreel sax la woon laaj naan lañ ka laay bëreel la ma ñëw mu toll ci neuf combats neuf victoire nag. teewul combat ma toll ci de combats ma agressé ko ba tarxiis moom gisuma sax dafa geesu rek arbitre bi arbitre bi yëkkati loxoom mais ko moom ma ba ñu ñaw ko. après micro bi bëgg a ñu jox ko ndam fekk sama fees bi laal na suuf. loolu moo nekkoon làmb jooju. moom woon ne sax daan la. yëgu ko woon dafa ñëwoon taxaw pour léewtoo arbitre bi ne ko kii feesam dafa laal suuf xam naa ne daanu naa. mooy li ma la wax xeebuloo da nga koo xeeboon respecté wuloo ko. waaw loolu mënu ci ñaax ndax adversaire dafa tamoon sama ginnaaw lu dem mu koy te xaw ma ne moom laay bëreel loolu moo jeexoon sama xol bi nag ñëw ba ci biir stade bi mhm. xamuloo ne moom ngay bëreel xaw ma woon moom laay bëreel muy moom mu lay waajal te yow xamuloo ki ngay bëreel ko te làmb jooju dafa bëri woon ay gàllankoor trop sax waaw ba ci benn maara boo xam ne dafa noon ñaanal may ñëw këram dekk mbër mi ci biir këram lay fanaan ba li ngay wax wallahi lazim làmb daal làmb daal yéeme na. ba ci jour combat bi maara bi di ma sàngee ay omo naan ma gàllaaj laaj lu kenn xamul <laughs> xam ne kooku rey ma bi ba dem esaat lay xam ne damay daanu. bi ngay dem xam nga ne tey du baax. damay ko wax. ñu baax kenn waxuma ko. bi nga demee bëre nga daanu lan nga ci jàngee. non. xam nga rek man dama la doon jaar foofu dem parce que benn instant xam nga booy bëri mbapat te mosoo daanu ngay bëri say morom mën leen fuuf hmm. boo ñëwee yu ñàkk fayda yu dina tarxis loolu moom da ngay dem ba da dama découragé woon dagg sumay galaaj sànni yi nga def benn combat daan daanu benn yoon waaw ni doyal ci làmb waaw parce que ñu ma àndaloon xam nañ ma ndax euh, làmb jooju ba mu jeexee champion yi ñëw taxaw ne ma gëmuñu woon ne mbër làmb ji ñu ngi ci daanu du heure bi ngay daanu yow ba ma pare ci loolu tegaat naa ci neuf victoires successivement yoo xam ne daanu ma. Hmm. nañ taxaw foofu tegal foofu sa loxo ma ñëw parce que am na xamante ni defe naa ne wooguñ koo laal léegi. Hmm. yow yaa ngi ci ñaata combat. loo ma xoolee ni di ma jéem a napp. yow kii kii saa lu ba amee looy wax. wala am looy def ngay wax ak kii. man ak yow laaj wax ak laaj laaj tontu luñ séq man ak yow. man maa ngi ci dix combat. ñaata victoire. neuf. neuf victoire grand Mbagnick moo ma daan. Yoya Mbagnick mais nag yow loolu moom faw ma laaj la parce que dama koo déggoon déggoon naa euh, sa premier combat fan nga bëri woon bawal bëri bu métti ñu dóor la dóor yu métti loolu moom dama koo dégg. Eh. mais loolu faw ñu leeral ko noonu eh. dafa ndànk rek. maa doore rek maa doore rek boobu moom. am na ko ne ma. Mhm. am na ko ne ma Tapha da cee ñàkk xaalis bu bëree bëri bëri. ga ga gaa combat boobu nan la demee. combat boobu boobu dama ko daan rek. ban booy la. Sa Thiès la bu. Sa Thiès Sa Thiès Sa Thiès bi équipe booy ñaar. yow yow xamul luy sa problème yow dafa mel ni kaay xeex moo la gënal kaay loo loo mënti am. non ko dajal yaakaar na yaakaar. non combat boobu xeexuñu de sax dañoo jàppante rek. waaw non xeexu leen nga jël coup boo xamante ni yow bi nga poyee sa waay. non du coup. lan la boobu moo tëggoon làmb ji quoi. ah ki moo tëggoon làmb ji waaw. lan lan lan lan moo lan moo lan moo tepp. naa ne moo nekk nii de. yaakaar naa jéem a ñu ñëw ci moom parce que fii moom fii la lépp di leer. loolu waru naa am la rek. accident la mbëkk combat bi wala dalaa dooku. sa bëñ bi jaar sa tuñ bi wala lan la demee noonu. non non non dal ma dal ma mbakkoon rek dama fiy tippee. waaw dala. <laughs> non dooruma de <laughs> dama ko daan. waaw ah. dama tëddee ci ci la ma mbakkee ko affaire bi mooy mm. la <laughs> moo defoon lii quoi. nga ñëw dakaar mm-hmm. euh, combat boo bëree bu ne. ñëpp neneen sa combat du gaaw combat dafa yéex amateur dañuy dem ba dañuy découragé lan la. non du question loolu xam nga des fois booy yi daam booy yoo xamante ni sa mbër di metti day metti waaw bu ñëwee nag nee dafa xaw tële parce que combat am day yàgg. <laughs> buuxante la buuxante buuxante. njaatin tamit. non du loolu njaatin dafa mën a bëre ku xam njaatin xam ne dafa mën a sama neuf combat amul jël boo xamante ni daan naa gis moroom. mais la moo tax doo ñëw rek jàpp daan comme ni booy def kii moom du yàggal kenn. sama ñaari combat yi nii ñaari combat damay ñëw jàpp daan. non ba ci bi bi sama ñaari combat laa fi bëre combat yi ak combat Arobas ak Albouri ñaari combat yooyu laa fi bëre combat yooyu ak waaw. te ñaari ñu champion la ñu te dañoo dëgër ñooñu damaa lama ma fa la ma la ma la ma foogoon ak la ma fa fekk dafa bokkul mais ba fa jógee ba léegi ay trois minutes la bëre 4 minutes. ci ay ay 25 secondes 5 secondes. <laughs> <laughs> mooy yooyu moom yooyu. waaw lam sax hmm? ma ci gën a neex dafa am lu ma ci gën a neex parce que yow. ñu ci bàyyi kii dafa dañ ne ñu ci dañ ne. combat am day gaaw. yow ñu ci bàyyi dañ ne sa combat day yàgg léegi dama xamul yéen ñaar bu leen boole day gaaw wala damay bëreel amateur yi xam nga ba yi moom mooy loolu dañuy ñëw boog gis bëre. Mhm. man dama leen di bëreel lu bëri noonu la damay ñëw wane li ma entraînement. lan moo lan moo sama bëre li tafaati nekk mbër. moo la duggal ci làmb wala. non mun naa ne dugal lu ma ci làmb mun naa ne dugal parce que tamit yow bi nga dugg ci làmb gis nañ ay Sa Thiès doo ko dugg si. ay Garga Mbossé dugg si man ci làmb man. Ah? man combat ak Bombardier ci que ci laa jege commencé entraînement. combat boobu boobu entraînement sax dama leen doon topp leen teyal seen saag rek. combat Tapha Tine ak Bombardier boobu entraînement ma sax dama doon ñëw rek di topp kaw man combat Garga laa ji ko bëre Garga ak Boy Niang mooy sama premier combat. Euh, mooy moo nekk fee euh, Demba Diop. Demba Diop foofu laa jëgg a bëree ci ak sun gi ci laa ko doore mu daanu. waaw waaw noonu la demee. boobu mooy ngi fàttaliku Tapha xam nga. waaw loolu moom yàggul. ah, ah. mais léegi ngay def say performance ci làmb. Euh, lan moom la gën a neex ci làmb ba nga dugg ci. lan moom la gën a neex ci làmb. ah gis gaay rek <laughs> gis mbër. Tapha mën naa ne. micro bi. li gën a tax mu dugg ci mbër la. ak euh, affaire bi neex ma daal loolu. moo tax ma dugg yi moo tax nga dugg ci. waaw. Euh, gis ngeen looloo tax ma dugg ci mais faw ma ñëw tuuti ci kombaa yu mujj yi après doog a ñëw nag ci euh, jàmmaarloo bi yeeg. mën naa ne daa yëngu daa war ma ñëw ci sa dernier parce que combat bi dafa taxaw nga ciy wax wax yoo xamante ni maanaam ku ku ku sa adversaire doo moromam abi sifle moo tax mu jóge moo moo tee mu jóge fi maanaam wax yi nga wax daal képp ku ko dégg day jàpp ne. yow ak Bulldozer du combat peut-être arbitre siffle moo fi ndax booy bi dafa bari wax wax yu bari ñu koy dégg sa diggante yow ak moom <clears throat> la moo waroon communication boobu. waaw xëy na tey wax ci tuuti daa mënta ndax man waxoon naa su ma toogee ci média. Mhm. Bulldozer dootuma wax ci moom parce que ranking la. dafa soxal. ranking la te man jàpp naa ne làmb sport national la boo xamee ne ñun dañ koy dañ koy dañ koy estimer. Mhm. mu suñu ambition ñu koy def. Mhm. nee naa ëllëg mën naa nekk roi des arènes mu soxla ma du ma soxor damay ñëw. nga wàccaat ba waat ak moom. lamb moo ñu boole woon ma daan ko jill boo xamee ne Sénégalais yi kenn lamlaamewu ko xam nga tey sa morom boo ko mënee. da koy daan ba jaar ci kawam jëli bi nga ko daan <coughs> kenn lamlaamewu ko mais moom ci premier chute bi la ñëw ah Adama. premier chute bi de. waaw léegi. Euh, premier chute. Mhm. ba mu amee man dama wëlu sama bopp parce que loolu sama for la ndax xam naa ne sama bopp laa la suuf arbitre ñëw ne njaaxoo la

dañu la jox bi mu defaatee appel nee moom la ñu jox ndam. ndam loolu yow waa nee moom nee na moom moo man li nekk CNG xam naa ko ndax dem naa ba jàkkaarloo ak Bira Sène. bi mu defaatee appel delluwaat nga dem naa ba CNG. gis nga moom këyitam boobu noonu. Mhm. amateurs yi gis nañ ko. xam nañ li ci nekk. Sénégalais yi mënoo leen nax moo nekk ci këyit xam nga da ko da ko scanner dafa scanner maanaam tempon yi ñëw teg ci kaw këyit te loolu dama waxoon dootuma jawaxate. parce que moom moo ko defal boppam. waaye yow moom ak ku ko mën a defar ñoom ñoo ko defar man. intérêt mais kayit bi jugewul CNG mën naa ko def. kayit bi gis nga homologué yi man ñoo ma signé ñoo ma suuf ba léegi CNG néew ma caat yaraax andil drapeau te drapeau mi ngi su ma nekk ba ma ko ñaanoon léegi ma andil ko wala ma taal ko su ma neexee ndax maa ko moom. Buldozer na gëm yàlla sama làmb ak moom moo tax nag mu am benn tur bi di nekk ci média yi di wax waxam ju bari jooju man dootul moom muy man ci làmb parce que booy bi rankiñ la te nit doo nekk rankiñee da nga bëggoon topp média di leen fay naan leen wax leen maa daan caatu yoo rax loolu amul sens mbër man ba ma ñaanoon sens barki Seydina Mohamed ma may ko sens mbër boo ko mënee di bëree koy daan ba tocc loo sam ba ma ko jàppee deuxième suite bi dafa yuux ay mbokam yuux xam ne tey du baax le kee boo ko fa yaratoon milliard dugg caatu yoo xalaatu ko kon man loolu dama waxoon benn séquence bu gàtt la ma ci wax man dootuma wax ci bulldozer parce que na yor papier site internet bu mu gis wala soleil bu mu gis dem taxaw naa leen xool leen muy nii caatu Yaraax Petit Patata aw ma temps maa ngi ci sama business maa ngi ci leen bu fekkee amul métier mu utal ko liggéey yaa ngi dégg am na yoo xam ne nag ñun ñu ko ay jeunes lañ dañoo gérer famille nekk ci leneen ak leneen ak leneen taluñoo nekk fii di tontonte ci ay média naan Bulldozer nee na wax na wax na wax na journaliste yi sax sa bee naan ma Bulldozer may woo waaye mun aw ma jotam parce que dafa boobi dafa soof wër ci estade làmb bu amul wër ci estade di leen taalal loxo naa leen wax kaay leen ma wax kaay leen ma wax xamul sens. am na loo xam ne amul sens yëfu jigéen la du góor na góore voilà man loolu am ci moom. gis ngeen mbokk yi kon dafa mel ni euh, Thiatou Yarakh leeral na li nga xamante ni moo nekkoon ci digganteem ak Bulldozer ndax maa daan daanoo dem naa defi recours jox nañ ma ndam yooyu yëpp moom waxee na ko li nga xamante ni moom noonu la ko santé wala boog li am li mu jàpp ne moom noonu la ko waxee su ma ñëwee ci yow sa combat mujj bi. diggante ak Baye Mandione combat bi nag metti woon na mais ci fin bi daal dafa xaw a yomb man xaw ma nu mu demee noonu. <laughs> waaw lu ko yombal. ah xaw ma da di doole entraîné tool nu ko naan dafa a yomb. non da ngeen da ngeen dóorante xeex tegante mbagg. jékki-jékki daal non maay gar rek. Hmm. xam mooy loolu der la du ma bàyyi. noonu la demee combat ñu si bàyyi nag yaakaaroon nañu bi dina demee noonu. waaw xam nga lam moom nu ne la mën a hmm. moom nu ne mën a ñëwee. noonu la demee. keroog daa daan. bu jël amoon nga yaakaar di nga ko daane noonu. amoon naa yaakaar ne mën naa ko daan jël bu gën a garaaw boobu sax. man de dama ne woon jël boobu bala mu amee ba léegi. man de dama ne woon mosoo ko cee gis. dama ne woon xamuloo ci loo dugg ndax ma Mandione ni mu toll ak Baye Mandione. waaw loolu la foog rek ni mu safee ma am naa ne bu dee am naa ne bu dee doole mooy loolu. yaa ngi moom ëpp doole bi ngeen jàppante. am na doole mais man am naa doole piir damaa leeroon na am naa doole pire dama ci liggéey loo xamante ni. fu mu mais nag bawol bawol dañoo sotti dañoo ñëw duy stade ba mu fees bawol bawol yi ni fu ma ko jàpp xalaat naa ne fu ma ko jàpp fu ma ko bëgg awale dama ko fay awale lu wér de wóor laa ci liggéey mu leer ma ne fi mu toll nii mooy lool fu ma ko cat nga am donc bu ma ko jàppee dama ko ciy daan mu leer laa la wax te mënoon naa gën a garaaw noonu. moo na gën a garaaw noonu. billaay walaay. waaw li ci des da koy dencal yéen booy yi. <laughs> dama koy dencal gaay <laughs> dama koy écho. booy wala paa yi <laughs> booy rek ku ci soxla rek ku ci soxla rek maa ngi nii toog. gis ngeen mbokk yi noonu la demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbëy waxtaan ak ñoom tey ki nga xamante ni mooy Caatu Yaax laa dalal ak ki nga xamante ni mooy Njaay mais nag ñoom ñaar bu nekk combat boo xamante ni mën naa ne ñoom ñaar sax bëgg nañ ko wala boog amateurs yi bëgg nañu kombaa bi xanaa nag ñoom ñaar tey duñ fi toog ku ci nekk laam lam loo wax ci booy bi ci booy bi toog. Ndiaye Tine waaw. <clears throat> waaw dama koy nuyu de passage ndax sànq def na geste bu rafet. Mhm. ndax ubbi naa ba pare tudduma turam. da koo fàtte waaw effectivement. Mhm. champion la. ndaanaan la def na preuve. waaw loolu laa xam ci moom. non loo wax ci moom man waxuma la ay wax baab ak yooyu. waaw lan nga bëgg ma wax ci moom. maanaam tey bu ñu la andiloon avance moom Ndiaye waaw parce que moom mii fi mu doon du a la ko nëbb de. Mhm. bëgg na la bu baax a baax. danaa xiif sax nag. waaw d'accord xam nga làmb. Mm-hmm. ay ndaw koy def. Mm-hmm. mais moom am na staff am na ay mbokk. du noonu. Mm-hmm. tey Ndiaye bu taxawoon tey ne maa Thiatou Yarakh tegal ma signé fii bu la ko waxee dala koy nax parce que xam la moo na ko. bu la waxoon ne signé dalay nax ndax du ko defee fii. mais am na ñoo xamante ni dañuy bàyyi seen i bët seen bët dañ koy sànni fii luñ fa gis mu jaadu dañ koy këf. waaw xam nga làmb moom dafa doy war ndax xoolal xoolal euh, nag. Ouzin Thiatou Yarakh Ouzin nag ma xamal la benn affaire de. Caatu Yaraax fair na trop mais Caatu Yaraax ñeme ko dafa yombul gis nga Caatu Yaraax nekk mbër moo xamee ne. peut-être euh, boo bëggee bëreeg moom. coow dina bëri nag <clears throat> yaa ngi dégg. mais Ndiaye Tine mi du bàyyi ma fenn yaakaar naa mosoon nañ dox suñu ko mbaam ak moom. est-ce que woon ci moom bu njëkk. bu njëkk ba. waaw euh, parce que euh, Vox Arena yaakaar naa moo ko doxoon. Mhm. ci diggante bi mu woo ma trois heures du matin la ma woo ah fekk maay ministère <coughs> mënu ma caatu yaraax yaa ngi njaaytin wax ci ay waxam. ma ne ko d' accord maay woo sama manager ma woo sama manager mu validé ko. cinq minutes ma waar ko téléphone ne ko c' est moom it mu confirmé mais quelque temps après làmb ji <coughs> mu bàyyi ko fa. dem yàquwul ci yow ah nag ma bàyyi ko fa ba dem bëreeg euh, yaakaar naa ci laa bëreeg Zal Bawol. Mhm. pare bëri bëriwaat ak Bulldozer nga dugg bawol daan leen combat bu gaaw yomb. waaw non du question ko dugg bawol daan leen sax lamb moom adversaire fu ñu féetee ak fu foo ko war a jëlijee da nga ko fay jëlijee. Hmm. muy bawal di parcelle di géejuwaay foo war a dugg fu nekk da nga fay dugg. adversaire bu nekk dañ la koy proposé yow da nga may woo di ma proposé adversaire. Hmm. waaw su ma ko war a jël dama koy jël mu dëkk fu nekk nag. ndax moom gën maa nekk bool bool. Hmm. waaw. <clears throat> combat bi sama combat ak moom. Mhm. waaw toll noonu ay temps ñu ngi ko doon dox ñu ngi ma ko doon wax. Mhm. mais xam naa problème mu prix moo doon sunu sunu sunu diggante moo doxoon ci diggante bi. mais du question. non du euh, question ay dama raw ka kii sama combat ak euh, nu mu tudd bi sunu combat bi mo. bi nga mujjee ba. non Birahim Senior la wala gan. wala arbuli la boobu moo bëri spécial bi. Mhm. biñ ko jógee bi ma ko waaye bi ma ko ndooy waxee daa ko waaj moom moom xaw ma woote xaw ma moom ne caat xaw ma caat boog na la xaw ma ne ko bu fekkee ne bëgg na ko man nangu na ma bëre ak moom à la fin la waa boxe arena mm-hmm. xaw ma Cheikh Omar lañ koy wax maa ngi koy passage di ko nuyu waaw moom moom ma di ma expliquer combat boobu ma ne ko amul problème buñ ci d'accord rek ci biir amul cool cool xaw ma nag affaire fu mujj tàggee nag promoteur bi ma wooyee dana xaw ma <coughs> mais comme li mu wax léegi de moo am booy ñaaw moo tax làmb ji a a la demee. waaw xam nga dana léegi léegi dafa wax fii ne bu ñu di ko aw ma fitu taxaw naan dama fi dama ko jël. mais bu fekkoon yaa ngi avancé sa poche yi kay. ànd bi ak fooy loolu kay du problème. non waxuma xaalis. est-ce que wax rek pour nga xam man dama ñeme fi ma jëm xam nga ma moom nee na. waaw dëkk ko yomb na. wax ji mën naa neex. loolu la mais moom xam na li nekk ci moom. waaw moom xam na xam nga moom li na ci moom la xam. waaw man li na ci man maa ko xam. ñeme ngaa jël avance kii. waaw yow man dama am ku may ragal Balla Gaye bu ma tegoon fii avance am dama koy jël. léegi moo waxi Balla Gaye caatu ma jëm laa la wax. xanaa déggoo li ma la wax. yaa ngi ak numéro. ngi ak numéro promoteur bi. waaw yaa ngi yow pas yaa ngi monté combat. déedéet pas yaa ngi monté combat. xanaa xamoon ne ba ma ñëw fii xamoon ne naa ko fekk. déedéet waaw loolu dëgg la moom tamit xamuloo ne na moom dama waxuma woon mu yaakaar naa ba ma woowee di dama laa ciblé ne hmm. mbër moom mënoo jeexal say morom. souvent day jot. gannaaw yi xaw la may sens parce que ñun tamit nekkuñu fii di def yu pambaay yooyu nga xam ne ku dëgg ñu jox ko pambaay waxin la quoi parce que tamit le problème xanaa xam eh, alxuraanu karim ñu bëri boo gisee ménagères ñuy def di jox seen adversaire yi nañ koy jox gars yi seen ñu ñu tolol mais ñu di ñu war a bëri suñu biir ba pare koo ci woo ñu naan la kii doo bëri moom doo ko loolu nañ ko bàyyi ñun ñooy maande suñu xaar di ñoo war a toll ci bëri mais da ngay yu bëri ñoo yàq combat yi yu bëri manager yu bëri ñoo yàq combat yi. Ousseyn man grand ma ci ñaan sens pour bëri yow. nga mm-hmm. ah, naan non non parce que booy bi parce que lii classé ma comme benn kii minimisé ma. Mm-hmm. damay xam sama bopp parce que man dama am classe. Mm-hmm. mbër da ngay préparé sa combat ni nga koy préparé noonu la koy préparé tant que mën dox kii di ñëw dew ma ci ay sën di formos yu tax dañuy financé dañuy financé que nga gañ nag wala nga perte. kon làmb fayaguñu tur la rek boo xamee ne moo ñu sonal fépp ba mënul génn fenn. kon tey dafa jot maanaam grand yi nga xam ne cinq ans six ans ñu ngi ci ginnaaw saako yi ba léegi bëriwuñu xanaa yow bëgg a bàyyi làmb ji non bu ñëwagum ci grand yi ñun ñoom soxlawuñu man xam nga waxee danga maa wax ma propose la ay adversaire waaw ne la dama nga seeti leen ndax d'accord nañ pour ñu bëri ak man mais yéen nag da ngeen yor jugee caay-caay ndax li tax ma wax ko mooy bu ngeen bëggee benn làmb da di jaral amateur yi suñ bëggee làmb waaw amateur waaw mais am na sànq wax ju important ju may déglu fii nii sànq benn émission. Mm-hmm. intérêt amateur dafa am. Mm-hmm. intérêt mbër am. Mm-hmm. intérêt promoteur am intérêt supporter am. say supporter dañu bëgg ngay vise de loin. rawatina nag mbëri bokkuñu mbëru gox dafa am ak mbëru koñ. waaw mbër mbëru gox gox bi da lay jox bopp yaakaar la nga nekk fa benn boo xamee ne benn bant nga fa. tey kooku noonu dañ ko war a maam xool fi ñu koy teg daal. et sax bu may waxe mais du caaga ku junng bëri moom kii taxul may wax ki champion la kii man prouvé lu mu prouvé ndax man bëri naa ko spécial. bëri nga ko spécial waaw moog Alboury man maa bëri bi. maag maag maag euh, aatu. waaw maag aatu ñoo bëri spécial bi man aw ma problème mu làmb. waaw aw ma problème mu làmb c'est-à-dire chaque jour booy doxee rek da doxee maanaam da dangay da da ngay da ngay vise loin comme li may wax rek. da ngay xool loo xamee ne peut-être mën na mën na mën na am fu mu kii parce que am na boo yoo xamee ne defuñu dara ci làmb te paa yi kese choisir di bëri ñoom. léegi nag yow da nga fee def dara moom mu def fi dara loolu tax mu bëgg leen a boole. waa déggu ma xamal lan laay bañ. waaw xamal lan laay bañ. c'est que raayante bi laa dul bëgg. dama bëgg mu non raayante amu fi de yow lan bëgg rek ñoo non fayaguma leen mais damaa bëgg ay nit fay leen. non déglu rek mais nit fay ñu tamit taxul may nekk fi di rayante. non doo rayante mais. xam nga xam nga làmb. waaw làmb moo baaxoo coow. te lii làmb coow la caatu yaa kii mhm. mënoo ko bañ. Ndiaye di waxal ak kii. non combat la dañoo war a bëre. ay naataango lañu. ni ma ko déggee mi wax ni dafa mel ni da la a ah, moom la rek bu fekkee bëgg a teggi xool feneen kay loolu du problème ñu xool lu ñu sunu war sax ci làmb ji dinañ ko lekk. loolu la de euh, yaakaar mais làmb maag moom làmb dàqu ko. am ma waaw boo wax ci bëri nga ma dama ne woo leen sama ménagère. Mhm. am na wala amul. am na kon Thiatou Yarakh ragal wala du ragal. non ragal nekkul ci yow mais boo ñëwee fii bu fi ne dama ko teggi ndax euh, yaakaar naa sama ménager woo na ma. Mm. <clears throat> di ma wax naa ma diw temps la fay sa diggante ak Ndiaye Tine parce que man maa ne ko ba wax ji man moom man li may def dafa yomb li ma gisee nii. comme maanaam li ma li ma kii daal li ma jaxasee. Mm. topp ma ci topp ma ci rek. làmb moo ma tax a jóg. Mm. su ma ko war ma koy jël. mais xam am na ñoo xam ne court carcourt dañuy bëgg euh, ne la mbër diw rek nga ne waaw pour ñu dem dox seen combat. Mm. te nit ku nekk am ngay mbokk dëgg fa yàlla xanaa man oh, staff may oh, àndal ma leen yab xam ne ñii dox ci man bu dig bu man ma xëy ne leen si ñanaa sama combat te waxtaanuma ak ñoom am na wala amul. faa nga woo paa yi daal man déedéet man lamb dama ko déedéet ay paa amu ci ak mer. lamb boo ñaanloo boo waree daanu ngay daanu. Mm-hmm. nit da ngay gëm sa bopp d'abord. man chaque jour man euh, maanaam philosophie bi may doxee ci làmb mooy que man su ma ñëwee dama lay attaqué dama lay duma dama lay daan ak noo mën a toll ak ku mën a doon yenn saa yi nag mbëri dañuy war ku ci mel ni booy defeaa ba moo bëral bee passé dafa war ci làmb ji ndax day ñëw amateur yi taxaw maan leen bàkki axwaanu karim su ma ñëwee taxaw bàkki axwaanu karim dama kii maa ko daal xeex dama koy jàll dama koy daan bàkki axwaanu karim xam ñëw war amateur yi dem doxalee beneen façon boo xamee ne mooy loolu donc saar yooyu doo bëgg bëri ak ñoom doo bëgg a bëri ak ñoom waaw ah, bëgg koo xam day taxaw dëggal boppam non man ay tànkam seen bopp ma daan leen loolu nga bëgg laa man boo suulee say tànk làmb ji day gën a gaaw boo suulee say tànk. xanaa ah, mais Ndiaye tamit noonu lay bëree loolu ma ci jaaxal. bu suulee kay mooy saraxe na boobu saraxe na boppam ndax <laughs> Ndiaye bu jaaxal ak man suulee xanaa ay mbokkam bëgguñu ko. waxala rek mais xam nga ne Ndiaye Tine moom mooy loolu Ndiaye bu dun moom arbitre mooy daal na sa kaw. mais dama dégg mu boo suulee say tànk day mel ne. suul say tànk taxaw may la une minute boo ñëwul moom maa ngi sa kaw. <laughs> mais kii di ay combat 3 secondes 5 secondes nga may une minute une minute. waa dinaa ko may une minute xool ko lu mu andi. mais la moo téye combat bi taxaw sa diggante ak moom. ah est-ce que du ci yéen. Ah, man moom du ci man leer nañ. xam nga ne man du ci man man pare naa fépp. waaw. Hmm. n'est-ce pas. wax nañu ba tey nga ma ak yow. déet man kay waxoo ak <laughs> <laughs> wax nañu ba tënk. waaw. nga ma déglu ma maa leen di woot mooy loolu. Ah. mbokk yi gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo mais fi mu toll nii budul budul njaay budul bu budul njaaytin ñan ñoo nekk sa kanam ñan ñooy sa adversaire adversaire yi bëri nañ dama ne la <clears throat> actuellement nii bu fekkee da nga taxaw nag pour bu rek seen morom hmm. jeexuñu mën nga citer vingt wala trente parce que boo yëpp ngi taxaw di xaar non mais li ma ma ñaar wala ñett rek voilà parce que man ba ma woowee hmm. dama ne la Moussa bëri la Moussa Dioum bu fekkee bàyyiwul lamb hmm. su ma mayee sens parce que mooy sama grand dinañ bëre nga oo man na Tonnerre mbër la mooy sama grand ci làmb li yàlla def mooy làmb ji bañ bañ ko bañ ko woowee confirmé na ne d'accord na ma ma bëri moom. Mhm. mais Paala moo ko yàq. Paala waaw ci liñ ma wax ndax ami ko loolu la ma wax nee Paala moo nanguwul ma manager am <coughs> kon loolu amul lu ma ci wax a Ndiaye taxaw na comme bam mais léegi comme que comme que comme a grand yi doon ñaan sens nangu ñoo bëgg ak yow doo wàcc booy tamit nga bëgg ak ñoom. waaw loolu ci sama ménagère d'accord yi amul amul problème boobu de. booy yi non man moom wax dëgg fa yàlla moom. Ibo mii léegi nee léegi nee na yaa ko tee nelaw. <laughs> bàyyi waaye Ibo <laughs> waaw nañoo ñu bëree waaw sama adversaire la moom mën nañoo ñu bëree quoi. Ndiaye. ci làmb defe ne yaa ëpp adversaire ci ci ci ci ci mooy fi. waaw mën nañoo ñu defante. Jackson non Jackson du la Jackson du daan du daan Ameth Deme du bëri ak yow. même baax na ambulance bu Thiès muy fi ñooñu ñëpp ay combat la yu war a mën a neex. Mor Dia gi fi Mor Dia ak ñax jëriñ ñi toog fii di wax nii xam nga lu dox seen combat mooy loolu. lu yàq seen combat pour man combat bi taxaw na pare guñ pour bëre de ñoom ñaar. waaw pare guñu pour bëre kay tegal naa leen sama ndën ci digg bi ñoom ñaar ku ci soxla jëlal ku ci bëgg rek ku ci pare pour Ndiaye Tine rek pare naa pour yow. soo amoon kàddu yu mujj lan lay doon. <coughs> su ma amoon kàddu yu mujj mooy que <coughs> maa ngi baalu wax ñëpp ci koor gi parce que yenn saa yi làmb dafa métti. Mm-hmm. yenn saa yi nga wax ay kàddu yu ñagas du neex ñu bëri. dëgg ay porteurs de voix kenn xamewuñu ci ñagasal wala ci wax wax yoo xam ne day day xajam. Hmm. chaque jour rek dañuy conduire dans la bonne voie di waxtaan ci làmb lu rafet. Hmm. di nga xamee ne mooy ñagas ñagas ci làmb ji aussi tamit CNG teggul ñu ko. démb waa jeune amateur ñu ngi doon réunion fële ci stade bi waroon naa cee dem mais dama amoon empêchement. Hmm. te li ñuy taxaw jóg rek mooy que daan yi nga xam ne moo nekk CNG. ak gëdd bi ñu ñàkk jox ñu delloo ñu ko quoi vraiment parce que tamit. ñun bu ñu yaakaaree ci làmb te làmb yaakaaruñu rek day métti kon nañu làmb yaakaar d'abord baa ñun ñu yaakaar ci làmb. dëgg kon li may wax rek mooy que ñun ñu ngi fi ndax làmb kii sama combat ak moom bu ñoree bu ko amateur yi waxtaanee bu ko bu ko manager yi waxtaanee man amu benn problème yaa ngi dégg. Mm-hmm. keneen ku nekk sama kanam tamit ku mu war a bëri rek su ma war a bëri yow bu mu yow laay bëreel. Mm-hmm. kon maa ngi ñaan jàmm ci Sénégal comme amateur yi dañoo war a kon yeneen champion yi dañoo war a ñëw toog Euh, maa ngi ñaan jàmm ci senegal mais Bill non kooku bëgguma sax ngay waxat ay waxam man wax dëgg fa yàlla dinaa gëj tontu ci moom. bu taxawaatee fii nga invité ko mu naan ay bakk axuraanu karima kii da ne ay bakk axuraan taxutul ma moom. vraiment parce que tamit nit ki da ngay dumoo boo bëggee dem. Mm-hmm. Serafal nee na maanaam boo bëggee raw say maas bul di geesu boo geesoo taxaw. Mm-hmm. te am na yoo xam ne man du ma ko geesu mukk lamb moo ñu boole woon dañoo am papa am yaay kon am na yoo xam ne bu ko indi sama diggante moom. man suñ duggoon ci néeg ma ne ko tourné nga jaar noonu billaahi wallaahi wataalaahi xam nga rek askan moom bu la tiimee bu la neexee nga am sañ-sañu wax lu la neex fu caatu yaraax nekkul tamit bu la neexee nga téye sa micro wax lu la neex man ay interview am sax dama ko seetaan yenn saa yi nit woo ma ne ma di wax na lii ma ne ko loolu moom la concerné. parce que da <clears throat> dama jàpp ne sportif la tudd sportif rànkiñee la. voilà loolu moo tax mais maa ngi lay gërëm bu baax Ouzin di euh, gërëm champion bi di wax ne promoteur yi aussi tamit les portes ouvertes pour tout le monde. Mm-hmm. moom mi prouvé na def na ay preuve am mënu ko bañ. Mm-hmm. keneen ak keneen tamit noonu vraiment kon mbal baa ngi seen camp daal mais aussi tamit euh, mooy li ma wax rek borom bitigu mbagg bu nekk rek magasin ci bi. waaw jaajëf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jaajëf. Ndiaye Tine kàddu di la sant la gërëm rek waa di. nooy waa Colobane bi ma jóge ñoom Binta Sakho ñoom mécanicien yi foofu ñoom Modou Baye Diouf Saliou Sey gars yëpp ñoom Modou waaw ñuy son ci njaaytin di nuyu waa gëpp gëpp gëpp gëpp gëpp waaw ma limbee damay juum ñoom dem patar seen nooy sama gars yi foofu ñoom Pape Sarr ñoom Bass gars yëpp daal sant neen ñoom Njame Baye Fall euh, Baye Zal di son ci njaaytin maa leen di ziyaare bu baax a baax di leen wax ne affaire yaay noonu ñu gën a téye gën cee ne rek la béy bu soobee yàlla di nuyu sama copain bi ma àndal Abdou Baro waaw moom di son ci jaay fu ma ko ne nan dem rek mu taal motom mbaa mu taal lotom ñu dem waaw di nuyu waale jaat waa ne ko yaay noonu nañu xool nu mu gën a naaj rek ñu doxal ko noonu mu oyofal waaw ko rek <laughs> mooy loolu noonu la kontaan naa waxal moo lay dégg kay. moom millionnaire la kay dégg naa dafa bëri xaalis. <laughs> non amaguma xaalis ah? amaguma xaalis ah. champion mag. gis ngeen mbokk yi lay demee ci jàmmaarloo may kontaan ci ñoom ñaar ñëpp ci ñoom ñaar ñëpp bu baax a baax di jox dig daje beneen jàmmaarloo ak yeneen mbër jaa ngeen jëf.